ñoo ngi dellusi ci seen waxtaanu fajar yi ni ñu koy baaxoo ji defee fajarug àjjuma mooy ànd ak yéen ci ilallahi ibadallah di ko ànd ak al imaam ibnu qayyim al jawziya rahimahullah ci eh, madaariju saalikin ci manazil iyaaka naabudu wa iyaaka nastain di xam-xam boobu nga xam ne xam-xamu taskiya la te mooy yar sa ruux sa bakkan ba sa zaayir bu mel ni sa baati nit niroog moom tabarkalla ànd nañ ci yéen ba am ci ay bunt yu am solo muy juróom fukki bunt te juróom benn fukk la ak juróom benn kon yi des bariwul tabaarakallah di ay waxtaan yoo xam ne ñu ngi ko tàmbali woon jamono yi ñu nekk ci rajo dunia euh, tabaarkalla tudde woon ko nag beneen tur bu bokkut ak wiin ko tudde tey waaw ilallahi ibadallah ci biir émission bu tuddoon risalatu thaqalayni waaw soxna roqeetu gay tabarakallahu ñëwoon nañ ba am ci juróom fukki jéego juróom fukkeelu jéego bi moo tolloo woon ak almahabba almahabba muy bëgg bëgg baat boobu nga xam ne tabarakallahu lu ko lu alquran di faral di jëfale lu baree bare léeg-léeg sunu borom ne yuhibbu léeg-léeg mu ne laa yuhibbu waaw bu ne yuhibbu lim aw gaay ñooñu la bëgg bu ne laa yuhibbu bëgguma ñii xëy na danaa benn bis ba xam ne bii incha allah bu bind bi ji tollee ci jeex ñu indil tomb bi ñu yàlla bëgg ak ñim bëggut waaw tabarkàlla jàngoon nañ ci aay yi sunu boroom waxoon ñu azilla ala al muminin aizza ala al kafirin te mooy ñim bëgg nañuy mel qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah ci bind yeen jàngoon la bokk yu na yujaahiduna fi sabilillah wala yaxaafuna lawmata laa'im sunu borom di lim juróomi melo yi nga xam ne ay soldaaram nun lañ mel euh, moom jàll jëlaalu ndax nit mën naa nekk jullit te du nekk soldaaru yàlla ni nit mën a nekkee citoyen te du nekk euh, soldaar euh, bëgg man daaqa taama al mahabba arafaha nee na ku ku mas cofkal bëgg xam ko waaw nit munta xam cofkal bëgg cafkaam te xamu ko waaye ku mas cafkal bëgg rek daal di xam bëgg mu eh, moo tax bëgg amul frontière saa boo ko yi bëggee yemale fenn euh, fa xadduha wujuduha foofa nga ko yemale foofa lay tàmbalee moo ŋàbbab sondeel di dox ci bitti ñooyam doo xam fu leer gi di yem mënoo ko dund fii la leer gi yem léeg-léeg ñu di ko feeñal waaye ki koy feeñal lott ci feeñal ko mbaa tële ko zur man tuxibu wa in chattat bika daaru wa min dunihi sahrun wa azhaaru wa innama yatakallamu nnaasu fi asbaabiha wa mujibaatiha wa alaamaatiha wa shawaahidiha bëri waa wax ci mbëgg sabab ya la ñuy wax ya ko waral la wax màndarga ya la wax ak shawahid ya meññit ma ak yooyu waaye loolu léeg-léeg ñu wax ca ba toqi te dugguñ ci bëgg moom ci boppam looloo tax boo ñëwee ci bëgg ci luxa al arabiya day nekk ci juróomi mbir bu ñu waxee baatu bëgg di ko tekkee ci la arab ay ay baat bu ñu fekkee lu set wecc weex tàll arab yi dinañ ko tuddee almahabba bi wax naa ñu ne xababal asnaan bu ñu weex tàll set wecc ñu ne xababa loolu arab dana jël baat bi tudde ko loolu waaye bu fekkee lu kawe ne fang ba jël puusal ma xool dinañu ko firi te mooy ndox mu teey la ca nekk ci wàllu nëx lépp dañ bu arab fekkee lu taqoog mbir ànd ak moom lu yàgg ba miin am ñu ne xabbal baxiiru wa ahab mooy bu gileem gooree ci barab tëfaa jóg ngoog léeg-léeg ñu firee ko allubb te moo di euh, ab saal wala ab àngaay walla ab xoox ca gaa ñuy wax làkki arab yooyu bi ko juróomeel léeg-léeg ñu fekk mbir ngëb ca wala mu doon lu ñu këru mokkal ko ñu tudde ko bëgg waaye boo seetloo juróom yépp boroom xam-xam yi nga xam na ñooy wax ci xam-xamu tasawuf di xam-xam ci xam-xami tazkiya yooyu yépp nangu nañ ko ci firi waaye lawazimul mahabba lañ koy tekkee waaw loolu mooy dossier ay dossier am loolu mooy document bi waaw loolu la ibnul qayim rahimahullah indi ci lu am solo loolu oustaz biram paate eh, biram jaxate ngeen baal ma ci màkkatu bi eh, ñu ñëw ci impact yi nga xam ne al dina ko def bu fekk nu lañ ko waxee professeur ji bi wa shawahidwa ba ci jiitu bu ñu xoolee wàll wi nga xam ne mooy jeexantal gi bëgg ji def mooy ba ci jiitu almaylu daaim bil qalbil haayim mooy jàng gu sax dàkk wala féete gu sax dàkk ci xol bu gëlëm loolu moo tax Cheikh Alxaaj Malik ca wasilatul muna mu ne ahlul mahabbati ahlullaahi ahlul mahabbati ahlullaahi yàllaahu waaw xasidaat al mustarsiduuna wala mustarsidaati yal na yàlla sàmm leen wala gën leen a sàmm e naka noonu dana def beneen jeexental ci ki bëgg ala jamii al mashub ci mboolem lu ànd mbaa mu taq ci kim bëgg nit du mën a bëgg nit te bëggut yi taq ci moom ak li taq ci moom loo tax bëgg sallallahu alayhi ba noppi bañ saxaaba yi mënul nekk mënul nekk wala bëgg yàlla ba noppi bañ yonent yi mënul nekk wala bëgg yàlla ba noppi bañ mbindeefam yi mënul nekk waaw tabarkàlla netti la woon naa leen ca suñu bind yële weesu sëriñ saali woo euh, xar mu damm ma tabarkalla ak jooyam yu métti ca xar ma waaw ci yu mel nii ci ngay dégg ne ah kon nangam égal nangam waaw xaadim njaay tasawuf yu mel nii moo lay jox jeexantal yooyu mu la koy firil ndax ku bëgg rek da ngay bëgg mboolem li ànd ak ki nga bëgg ngoog moo tax ku bëgg yàlla rekk bëgg yonentam yi ku bëgg yonent bëgg saxaaba yi wala xawaari yu ni ku bëggub sëriñ bëgg ay taalibeem tabarkàlla wa hakaza ngoog ñu waxaat ne ci wàllu woowu muwaafaqatul xabibi fi l mashhadi wal maghrib ne na bu nit bëggee dara walla bu nit bëggee kenn ci teewaayam ak absence am bu fekkee nu lañ koy waxee professeur yépp bëgg day daal taxaw bu absenté ak bu teewee waaw loolu da koy ëmbaale day ne ci biir waaw looloo tax tabarkalla tomb yooyu am solo lool naka noonu ki bëgg du xeeb du xeebal kim bëgg dara waaye it lu bari ci topp ko te tax li ko tax a da cay nekk istikfaarul xalili min jinaayatika wa istiqlaalul kathiri min taatika di di yéem lu tuuti di tuutal lu bari ki bëgg yàlla subhaanahu wa lépp loo xam ne war na koo mën a merloo lu loola du ko xeeb loola du ko xeeb waaye lu di topp yàlla dina ko xeeb loolu ci xeeti eh, bëgg la bokk mu ngoog kayfa tataallam al mahabba naka la ñuy jànge bëgg toujours nag ñu ngi jëm ci diggante nit ki ak boromam subhaanahu wa ak yi ko wër ndax yëf yi nga xam ne ci aju al nee nañ li nga xam ne moo koy sabab ba nit ki am ko diggam ak boroomam mat na fukki yëf yoo xam ne bu nit bëggee yàlla bëgg ko ca yooyee lay jaar ba yàlla bëgg ko ba yàlla bëgg ko moom nag yàlla bu la bëggee moom amul fu muy jaar pour mu bëgg la yow da nga koy jaamu rek tabarkalla ba dégg liste ñim na def leen bëgg nga bokk ca liste ba bokk na ci nit ñi jàngi bëgg suñu digganteek sunu borom subhaanahu wa taala ak mbindeef yéeg yonent xiraatul quraan bi tadabburi wa tafahum li maanihi wa ma urida bi jàng alquran di settantal aayaam yi di jéem ma xam li mu wundu ak li ci yàlla jublu subhaanahu loolu day dem ba yóbbu nit ci mu bëgg boroom alxuraan mu bëgg yàlla subhaanahu wa te loolu muy jàng ci alxuraan bu ko defee mu bëgg yàlla da koy def mu bëgg ñooñ yàlla te ñooñ yàlla ñooy ahlul mooy ahlul quraan ndax de hadis baa wax ne ahlul quraan ahlullaahi wa xaasatu jàngal quraan googu day def nga bëgg alquraan boo ko bëggee tàmbalee bëgg ñoñam du too seexlu dongo yi waxuma sëriñi daara yi du too xeeb daara tabarkalla la kulli xaal ngir jàng bëgg yàlla subhaanahu wa bëgg mbindeefam yi bëgg yonent yi alayhim salaatu wasalaam fa ngay tàmbalee mooy bunt bi mooy fa ngay tàmbalee mooy jàng alquranul karim tey settantal maanaa yeeg waxinam ndax alquran waxin doy waar lay wax tabarkalla te neex ñaareel ba ci ni ñuy jànge ak bëgg mooy ataqarrubu ila llahi bi nawafil baad al faraid mooy jéem a jege yàlla ci naafila ginnaaw bi nga defee farata yi waaw am na nu ko al ustaas Ahmed Daam Njaay di waxee naan farata yi mooy tax a nekk jullit naafila yi mooy tax a mooy tax a mat am na nu ko ciy waxee tabarkàlla nu am am solo waaw kon ki nga xam ne dafa bëgg bëgg yàlla bëgg yàlla bëgg ko bëggante am seen diggante mooy muy naafila ginnaaw bu defee farata yi naafila nag professeur ji bi mooy def loo xam ne euh, ay heures supplémentaires lay doon wala ay promotion lay doon wala ñoom seen yooyu bu fekkee ku am xaalis la boroom xaalis moom ay naafilaam daa war a nekk ay sec ay naafilaam daa war a nekk ay sec ay som la bu dee koo xam ne kii amul xaalis ay naafilaam nekk ay ay raka waaw loolu nag yonente baa ko waxoon ca addis ba addis bay tuddee zahaba ahlu duthuri bil ujur waaw dahaba ahlul ujuri ahlu dusuuri bil ujur saxaaba ñëw ci yonent bi ne ko ah boroom xaalis yi day yóbbu nañ tuyaa bay jàkka jeeg jumaa ji ah mu ne dañuy jullee ndoog ñun ba noppi topp na duñu joxe dépense yonent bi ah waaw loolu day dëgg la gaa dañuy julle ci jàkka ji ba noppi mbaa ci jumaa ji topp ñu amul dépense ñëpp la jox leen ni dépense bu dee suñ dàkk nag léeg-léeg nu julli sëlmal rek jenn waaye nu ñokket <laughs> daan ne dara nekkul ca kër ga waa jàkka ji ne ko toogal waaw toogal may nu ko defee ñoom tam buñ nappee daan ne lu waay man ci jàkka ji <laughs> xaw ma nag nu mu demee noonu waaye daal léeg-léeg ma gis ko ci jàkk waaw alaa kulli xaal ku bëgg yàlla bëgg la dangay nangoo jàngal xuraan ku bëgg yàlla bëgg la dangay nangoo naafila ginnaaw bi nga defee farata yi ba noppi ndaxte naafila tuusilu ila darajati al mahbubiya baada al mahabba da lay jële ci bëgg yóbbu la ci ñu bëgg la ndax bëgg ak ñu bëgg la ñaari yëf la bu ñetteel bi ci ku bëgg jàng bëgg sa boroom mu bëgg la dawaamu zikrihi ala kulli xaal mooy sax ci di ko zikr waaw sax ci di ko zikr la seexul islaam xaaj Ibrahima Ñas daan wax tabarkalla nekk leen ci ba ku leen gis defe na dof ngeen waaw <laughs> mu ne zikkar leen ne ci sikkar si ba ku leen gis jàppe leen ub dof bi lisaani wal qalbi wal amali wal xaali ci bil lisaani zikkar sa na ko làmmiñ wa di wax na làmmiñ wa tooy xepp di ko wax sama mbokk ma alustaas Alioune Guèye ca cene ba rahmatullahi alayhi <laughs> mu ne làmmiñ wu tooy ci zikr mooy tooyal xol mu ne xol bu tooy ci zikr mooy yëngal jëf mun na jëf ju tax a dakk ci zikr mooy soppi xaal <laughs> daal yuux yuuxu ndeysaan ci rahmatullahi aley mhm. bil bi wal qalbi wal amali wal xaali làmmiñ wi day day zikr bi na ci làmmiñ wi ñi dëkk ci kaw gi di segal diw xam nañu diggante kuur gi ak euh, layu bi ak machine bi niñ ko ci nale di ko were di ko di ko biis muy toq euh, làmmiñu nit buy zikkir jeexantal zikkir yi mooy toq ca xolam bu xol ba tooyee tàmbalee mën a jëfloo cër bu cër ya tooyee tàmbalee mën a soppi xaalu nit ki bu fekkee dafa nekkoon ku nay nga gis dootul nay bu nekkoon ku soxor nga gis dootul soxor yu yëpp euh, liquide boobu moo koy def ci moom benn exemple bu professeur bi ñëwee ci classe bi daal nuyu xale yi bonjour mes élèves xale yi jóg ne ko bonjour monsieur daal di àggaat suuf euh, professeur Balla Ndiaye day xool table bi gis mu taq day wax benn xale fompal table bi bu dee jamono yi nga xam ne ndox daa amul ci pénc mi siwo bi li ci nekk ci ndox bariwul nga xooj ca éponse bi boo ko to boo ko fompee ak table bi table bi day gën taq waaw ndax ndox si bëriwul waaye bu ndox mi baree boo ko fompee ci tab table bi fekk éponge bi tooy boo ko effacé day ñuul kukk loolu mooy lan mooy xol bi balaa mën a jëfloo cër yi day fekk day tooy lu koy tooyal zikrullah bu xol bi tooy ak zikrullah waaw tabarkalla bi lisaani wal qalbi eh, wal amali wal xaali tabarkalla ñett yooyu yëpp ñeent yooyu yëpp lay boole wala mbokk ñeent yi ñooy jur résultat wu ñett yi ñooy jur résultat wu bu ñeenteel bi fa tusibuhu min al mahaba ala qadri nasibihi min hada dikr dina am ci résultat ya bëgg boroomam waaye ci kem ni zikkaram toll ñeenteel ba ci bu ñuy jàng bëgg sunu boroom subhanahu wa ak yim am mooy ithaaru mahabihi ala mahabika inda galabatil hawa mooy su bànneex jógee doo def mukk ñi nga àndal bëggal ëpp gënal la ña yàlla àndal déedéet ñi nga àndal gënal la ña yàlla àndal déedéet loolu du nekk kere ba euh, sëriñ Mbàkke soxna loo wàccib liggéey rahmatullahi alayhi ba nu dem di ko ziyaare ji ak di jaale ñaari baat yooyu laa waxoon Cheikh Abdourahman Mbacke waaw na la ko yàlla yokk wér seettin idaaru mahabbihi ala mahabbika inda galabatil hawa mu ne su ko wax ca kaw nag waaye lu am solo la <laughs> seettin mu ngoog mu ngoog tubarkal lu am la bu juróomeel bi ci ni ñuy jànge bëgg mooy mutaalaatul qalbi li asmaihi wa sifaati mooy fu sa bi toll di yër di yër turi yàlla yi di yër meloo mi waaw di yër turi yàlla yi di yër meloom yi di seetaan turi yàlla yi te jéem a xam euh, pirima ak itam di dem ci toolu yàlla ak di yóbbu gopp ah fa man arafa allaha bi asmaihi wa sifaati wa afali ahabahu la mahala ku xam yàlla xam meloom yi xam turam yi xam jëfam rekk bëgg ko ku xam yàlla ci turam yi xam ko ci meloom yi xam ko ci jëfam yi ahabahu la mahaala mënoo ko ñàkk bëgg waaw mënoo ko ñàkk bëgg waaw ba yàlla ci turam yi nga di jàng alfaatiha mu la allah waaw mu ne arrahman al malik waaw muy maliki yawmi diin waaw tur yooyu moo ne ci al fatiha allah ar rahman ar rahim muy juróomi turam yooyu mbokk yi waxtaan wi di jeexut dañoo ak fi ñu ko war yëkkatee bu ñu ko dégloo baamtu ko baamtuwaat ko dóoru indi bu bees ndax noonu lañ koy doxale moom waxtaanu fajaru ajjuma ak bu samedi ak bu dimanche jërë ngeen jëf ak ci nañ fi war a yëkkate jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seeni kayit bëgg leen a firiñ fànceel xibaar yi ci tubaab firiñ fànceel leen ko ci wolof ñu naan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara ki nga naan daloon ci waxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu